nitu tukki ngir dem ci réew tugal yu ci mel ni France Espagne wala sax itali doon na lu jafe lool ci réewum Sénégal mu di mbir moo xam ne ni yàgg nañ koo ñaawlu rawatina jafe-jafe ya nga xam ne ni moom lañ ci doon di am mu ngi mel nii ci jafe-jafe yooyee dañ cee toftal lu bees. maanaam ci ambassade yëpp dañu am problème mu rendez-vous rendez-vous jafe gu mu jafe certaines personnes su ñuy profiter di ko jaay à des sommes colossales exorbitantes maanaam somme yoo xam ne daal ko nangu. maanaam lu ngay lay jaay rendez-vous mën na jënd sa biir aller retour. mu bëree ci ma réew yi nga xam ne ni dañuy ñëw ngir ñaan visa lu ci mel ni ay jàngkat ay jaaykat wala sax ñi nga xam ne ni dañoo bëgg dem wutali ci seen njaboot ci yooyu la réew dañuy faral di am ay jafe-jafe yu bëre ngir jot ci bileeg rendez-vous loolee tax ba ñu boole seen doole ci benn collectif ngir mun koo ñaaw lu loolu métti ñu ñëw tey pour ñaxtu def demande de pour def marche ñaxtu loolu constitution moo ko maye sanduñu taaluñu. xeexuñu. gannaaw bi nga xam ne nii laaj nañu sañ-sañ ngir amal bi la dox ñaxtu li ko dalee hôpital bu Wakaam wutali VFC global ndawal buur daal di leen koy bañal moo ne sax bu ñu sukkandikoo si ñoom balaa ñoo amal bi la dox ñaxtu jot nañoo dem fu mbaxane doonee benn. Euh, def nañ plainte déposé ko au niveau du procureur loolu jàllee aussi def nañ ay euh, zaaru ñaxtu bind ko déposé ko au niveau des ambassades pour wax ne ñun sénégalais yi dañoo sonn. fu ñu war a yuuxu dem nañu fu ñu war a jooy dem nañ fa. ñoom ñi lee di ñaan it njiitu réewum senegal ngir mu indi saafara ci seen i mbébét. mu gën ñu taxaw mu taxaw doomu réewam ñoom bu ñu bëggee jël gaa yi dañu ñëw taxaw ñoom. ñu xeex ñun ñëpp maanaam c'est l'affaire de tout le monde. ñu ne ci jamono ji nga xam ne nii ay ndaw yu bëre ñoo ngi daw wutali ji réew tugal yi jaaree ko ci mbëkk mi ba tax na léeg ñu bëre di ci faatu. loole doon li war a tax ba kilifa yu ngànk wàllum joxe visa ci biir réew mi mën a yombalal mbir mi ba ku ko yellool. mën koo am.